wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax ci weeru safar wi ñu nekk ak ci barab bu tedd bi ñu nekk muy barabu Cheikhul Khadim di jumaa Tuubaa ni ñu ko defee nag ci at yi yëpp nañu ak yéen ci liggéey bu am solo bi nga xam ne euh, dañ koo séq ak mbokkum taalibe koo xam ne suñu borom defal na ko taw tawféq mu muy tabbal loxoom ci taxawaayu jumaa ji ñu gis ko nii muy ci suñu ndeyjoor muy professeur Daouda Ndiaye professeur Daouda Ndiaye ku xam lu jëm ci wàllu santé xam ko ci ak taxawaay yi mu ciy def yàlla defal ko tawféex nag euh, lu ay ati at muy dugal loxoom ci liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma bi muy taxawee ci jumaay Touba rawatina li jëm ci wàllu santé euh, at yi yëpp muy xool bëgg-bëggub daayira bi ci wàllu wér-gi-yaram mu ci taxaw ci ay jumtukaay dina ci ñëw léegi incha allah Euh, ci ay euh, médicament yoo xam ne dafay jëm ci taxawu ñi nga xam ne tawat daf leen di gaar ci biir Jumaay Touba. xam ngeen ne Jumaay Touba ci ñetti at yi dafa am benn infirmerie bu am solo boo xam ne dañ ko fay taxawal ngir taxawu pèlerins yi nga xam ne dañuy ñëw ci màggal gi mais bu dul màggal itam lu mel ne jum juma yi xam ngeen ne mbooloo mu bari ñoo jullee ci Jumaay Touba. ba tax mu laajoon nag ay taxawaay daayira bi nag defoon ci ay jéego. ba wut barab boo xam ne dañ ko dañ ko waajal ngir taxawu ci ñi nga xam ne léeg-léegi seen wàllu wér-gu-yaram dafay xaw a bu ñu ñëwee ci jumaay Touba ak mbooloo mu bari mi fi daje. loolu nag ren jii Cheikh Mahamadul Muntaxa def ci liggéey bu am solo boo xam ne dafa wax ne am solo barab boobu tax na mu sant ay mbokki taalibe ñu yaatal ko gën koo defaraat gën koo kiyaat ba mu gën a méngoo ak euh, euh, norme yi nga xam ne mooy norme sanitaire yi. infirmerie bii fi lañ nekk nag professeur Daouda Ndiaye ni mu ko baaxoo defee ci événement yi rawatina ci màggalu Touba ay jumtukaay yoo xam ne dafay jàppale infirmerie boobu ak ñi fiy faj ay matériel ak ay médicament yooyu nag la woon tey jii dëppoo ak ajjuma euh, fukki fan ak juróom ci weeru safar ngir jébbale ko euh, ñi nga xamante ni mooy waa daayira Muxaddamatul ma boo ko defee ñu teg ko ci loxo yi euh, médecins yi nga xam ne ñoom ñoo fiy nekk diira màggal gi di taxawu taalibe yi kon du ñu def lu dul jébbal professeur Daouda Ndiaye kaddu gi mu leeral liggéey boobu Hmm, fu mu toll bu ñu paree nag ñu jox sëñ Abdou Lahad Bousso Muxtaar mi nga xam ne mooy wax ci turu daayira Muxaddamatul Xidma ci turu sëriñ Afiya mi ko jiite euh, kadduy cant ak kadduy nangu euh, ak kadduy ñaanal ko euh, suñu borom gën ko mën a taxawu ba liggéey bii mu gën cee mën a dajeeg lu kawe njortam kon professeur bismillah <coughs> alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi nuyu Serigne Touba Mbacké Bassirou yàlla na fi ak bépp kilifa bu fi nekk ci Touba. Euh, di ziyaare bu baax a baax a baax euh, sama mbokk yi sama kilifa yi muy waa daayira bi Moukhaddamatoul Khidma bi nga xamee ne tey léegi li ma seq ak ñoom euh, nekkatul sa entre kilifa ak taalibe waaye dañoo bokk doon benn. di sant bu baax a baax a baax sëñ Touba bi mu ñu mayee bi mu ñu dimbaliwaatee ci ci ci ba ñu ñëwaat ren ji Euh, liñ mu ñu doon may ñu ko koy defal fii ci ci ci ci ci jumaa ji ci dispensaire bi nga xam ne at bu ne bu màggal gi taxawee euh, dispensaire bi nga xam ne euh, lépp luy dugg ci ci képp taalibe buy dugg ci jumaa ji nga xam ne lu ne mën na la fay dal comme nu ñu muy dalee fépp ci àdduna ndax jàmm moom da ngay dem rek may xamoo lu lay dari bi mën nga fay ñëw sant yàlla dellu si waaye mën nga fi am lu tuuti loo dal jumaa ji nag sëñ Muntaxa taxawal ko ci fekk fii nga xam ne tey yokkaat nañ ko pour que képp koo xam ne ñëw daal looy soxla ci jumtukaay ci wàllu faj ñi lañ ko mën a joxe. loolu nag muy li ñuy sant yàlla bu baax a baax a nag ndax fu ñuy eh, eh, gisee ay millions mu taalibe di fi ñëw lu mel ñu taxawal ko eh, dañ koy sant yàlla ñun nag ñu ciy jéem suñu waar di ci bay waar wi rek ci ndigalam nga xam ne lii ab adiya lañ ko tuddee ñi loo nga xam ne daf ñoo war daf ñoo war ñu koy sant yàlla bu baax nag ndax am na ñu ko bëggoon te mënuñu ko. waaw ñun bu ñu ko mënal bu ñu ko ñaanalee ba ñu nangul ñu ko loolu sant yàlla mënu kaa weesu moo tax ngeen gis fi garab yoo xam ne am na ñu yaakaar CREC képp ku fi dugg ak docteur yi nga xam ne taxaw nañu ci nag euh, seen ndigal yéen niñ ko organisé niñ ko liggéeyee li fi ne ci lal ci équipement nga xam ne yokk nañ ko yokk boo xam ne ku fi dugg tey sa xel dal ndaxte kat euh, jaam moom sa dem nga xam mais xamoo sa dikk waaye foo mën a nekk nag bu fekkente ne mën la jox soins yi nga xam ne mooy d'urgence yi nga xam ne yi nga soxla boobu sant yàlla mënu kaa weesu te li ma fi gis fii nga xam ne defaat nañ tour bi bu doon fukk lañ mënoon jël daaw te defe naa ñu ngi ci fanweer loolu nag lu mooy wax taalibe ñu xam ko bu baax a baax ak baax xam ne sëñ bi mi ngi mi ngi mi ngi def loo xam ne ñu bëri sax mën naam xamuñu ko ndax wér yaram moom bu demee bañ la koy euh, lijjantil sant war nga sant bu baax te wér-gu-yaram rek fu mu toll ni moom garanti na ko ndax euh, li fi nekk ci docteur gis naa ko li fi nekk ci gis naa ko li fi nekk ci ay ay fajkat lay wax sax bëri na macha allah li fi nekk ci ay lal euh, d'hospitalisation bëri na table de consultation lépp lu nga xamee ne daal euh, jaam yi soxla nañ ko mi ngi ci biir loolu tax ñun ak li fi nekkoon nag chaque at ñu jël ne ñun kat kenn duñu ci ëppale pour que lépp lu nit ñi soxla ci faj bi mooy mooy mooy mooy lu mën a daal bu duggee fii daal incha allah rab yi bu fekkente ne jarul ngay dem hôpital yu mag ya dinañ la faj fii téye la fi ba ngay génn booy dem bu jaree nga dem hôpital bala ngaa dem lii war dinañ ko def ba nga xam ne booy dem foofu dañ fay continuer rek mais day fekk sauvé nañ la ba pare. loolu nag ñu ngi ci sant ñëpp waaye encore une fois di sant sama sama mbokk yi sama kilifa yi waa mu xatif li xidma yi nga xam ne euh, at bu ne dañ ma koy yombal bañ indi ko ci jumaa ji tey mu tombe àjjuma loolu sant yàlla la lii nag euh, defaluñu ko kenn suñu bopp lañ ko defal ndax sëñ Bàmba ku ko lebal mu fay la mu ful la moo tax bi ñu ko commencé def ba léegi yokkute rek fi gis. maa ngi koy maa ngi sant yàlla daal di ñaan yàlla sëñ bi yàlla may ko fan wu gudd gu ànd wér. taalibe yi yàlla may la ñu màggal ci jàmm ak salaam dellu si jàmm ak salaam di dalal seen xel daal ne fii daal parce que xam nga ñi fi ñëw rek du doon taalibe rek la. nit africain yaa ngi fiy ñëw tubaab yaa ngi fiy ñëw ñu xam ne Sénégal moom lu mel ni Touba jumaa ji de ñu ngi ci norme yoo xam ne au plan mondial lépp lu nga xam ne nit dafay dajale liñ fay laaj ci wàllu faj ci wàllu préparation. am na ci Sénégal am na ci war jumaa ji waaye am na ci biir jumaa ji loolu mooy li ma ci woon wax garab yi dama gis ngeen ko def naa am na amul benn bu ñu bàyyiwul ah, lépp nag gisuñu ko ne yàlla buñ ko gis ne sëñ Tuubaa boo koy liggéeyal doo ko gis loolu naan naa ko sant sant sama sëriñ sant si ñëpp ñu nga xam ne daal jàppale nañ ma bëli am waaye encore une di sant bu baax sama waa Moukhaddamatoul Khidma bi nga xam ne wax dëgg yàlla euh, ñoom la sëñ bi tax jumaa ci seen loxo te ñoom ñu may wax ne ñu ngi ko yombal ñu ngi ciy def lépp lu ñu war en tout cas lu waa lu waa lu sant fii na taalibe seen xel daal man maa leen ko wax am na fi mi ngi fi te lu fi war incha allah dinañ ko def may gërëm nag docteur yi fi nekk di leen sant di leen encouragé sant naa yàlla ba nga xam ne ñu ci bëri fekk naa man maa leen jàngal dafa mel ni donc man chaque jour maa ngi fi ndax koo jàngal rek bu fajee rek yow yaa faj donc loolu mooy beneen euh, loo xam ne daal ñu ngi koy sant yàlla bu baax a baax. bon du urgence kese li garab yi boo xam c'est vrai que pour urgence fii unité d'urgence la waaye xam nga nit ki moom mën na ñëw ci jumaa ji sax bëgg am lu ko metti rek mu faju si donc ce qui fait que dañu em soof boo xoolee li ma gisal li ma jàkkaarloo yi rek lii euh, ay antibiotique la donc boo xoolee lii euh, pour faj luy metti la lii ay antisémitique la lépp luy allergie et cetera et donc ce qui fait que un euh, sooy kii ay garabu saan la soo infirmière yaa ngi fi gants yaa ngi fi ba ba yaa ngi fi. lépp a fi lépp lu nga xam ne à l'aise yëpp yi nga xam ne euh, nit dañ koy soxla ci hôpitaux yi daal moo tax ma ne gëw ma ne en tout cas bu dul lu garaaw nit ñi dinañ soxla feneen donc pour urgence la ak pour prise en charge de routine loolu nga xam ne moom lañ fi bi wax ji am na solo te leer na te li ci gën a amati solo nag mooy euh, euh, ñàkk gi nga xam ne ñàkk nga koo gis sa bopp ci liggéey bi. ndax liggéey bi ni nga ko waxee Serigne Touba moo ko moo moo ko tànn teg ko ci sa loxo ndax bari na ñu ñu la ko dàq wala ñu la ko ëppale waaye amuñu tawféexi dugal fi seen alal jumaay Touba képp ku fi dugal sa sa sa alal wala saw ñaq rek sëñ bi moom moom moom la neex moom la nam la nga nga nga tàbbal ci sa loxo kon nag loolu sant yàlla la rek te it euh, sëñ bi gis na ko te sëñ bee la ci ñaanalal boppam kon sëñ Abdou kon dégg nga waxi professeur bi ni mu amee solo euh, yaakaar naa lii mu fi teewal tey ak yeesal yeesalaat barab bi ni mu ko waxee yokkaat capacité bi euh, ci lal yeeg ci matériel yeeg ci euh, fajkat yi ba yokkaat benn extension boo xam ne at yi ñu ngi koy def yaakaar naa lii dana ñëw man cee amal liggéey bu am solo kon ci kaddu daayira Muxaddamatul Xidma ci turu Sëriñ Afiya ñu jox la kaddu gi euh, sëñ Abdou Lahad Bousso Mokhtar. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. professeur ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax ci turu daayira Muxaddamatul Xidma. ci turu sëriñ Afia mi ko jiite ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo jiite daayira Moukhaddamatoul Khidma te nekk ñi ci sa kanam taxaw ak ñeneen ñi fi wutu yëpp <coughs> di la sant bu baax di la gërëm bu baax ci liggéey bu rafet bii nga xam ne siwaat nga fii tey jii indiwaat ko fi te lii du sa yoon wu njëkk waaye mën nañoo wax ne mooy sa ñeenteelu yoon boo xam ne indi ko ko fi euh, mu mel ne sunu xamante ak yow mi ngi jaare ci euh, loxo Cheikh Mouhamadul Mountakha euh, barab bii ñu ngi ko defar ci 2018 tàmbali fee faj yàlla dogal 2019 Euh, bi Covid 19 duggee ci réew mi ñu war a ubbi jumaay Poroxaan nga taxaw fa taxawaay bu rafet ci waajtaay yu am solo yi nga xam ne def nga ko foofee fekk sëriñ bi woonu foofa ca Poroxaan ngir taxawu ñoo taxawuloo ñu mm, ubbiteeg jumaa ja yàlla def nga fekk nu fa sëriñ bi yëkkati sa loxo teg ko suñu loxo boole nu booba ak léegi nga jàpp nu jàppin bu dëgër woo xam ne euh, dañoo mel ne ku bokk ak yow ndey baay muy guddi muy bëccëg waxtu wu ñu la soxlaa bu ñu la woowee jot la yitte ju ñu am ci barab bi itam bu ñu la ko waxee nga taxaw ci sa taxawaay bu mat sëkk waaye nag barab bi nga xam ne fajukaay bi nag ak màggalu Tuubaa 2019 boobee ci même année bi ba tey jii may waxee yow ci 2023 at mu jot def nga nu mel nii jël ay millions jënd ko ci ay garab jënd ko ci ay matériel andi ko fii te yàlla ak Sëriñ Tuubaa rek tax loolu nag Serigne Touba mi tax nga di ko def gis na ko ñun seere rek lañ ci mën a doon seere rek lañ ci mën a doon waaye Serigne Touba moo moom liggéey bi te gis na ko luñ kuñ ko fiy liggéey ki ki ko fi nekkal itam taxawul taxawul ko njaboot gi taxawul ko liggéey muy Cheikh Mamadou Mountakha it gis na ko yëg na ko yàlla def na lépp ci loxoom la jaaroon ba dëgg te waxtu bu nekk itam lu fi mën a ñëw loo fi mën a indi danañ ko leeral ba mu leer ko nañ am na ci yoo xam ne ànd nañoo yow am na ci yoo xam ne àndunoo ak yow waaye lu mën a doon lu fi ñëw dana ko leer nañ te danañ ko ko wax ba mu leer euh, garab yii nag ku xam garab xam ne ak mbus gu ndaw danga koy ŋàbb dem pharmacie jënd mu doon xaalis bu dul jeex kon soo fi indee lu toll nii te at mu jot nga andi ko fi wax dëgg yàlla xëy na bëggoo kuy tudd li li bari waay bi de ndax xam nga sa diggante ak Serigne Touba waaye nag ñu ngi koy defal it wala boog ñi muy jaar seen loxo it yëg nañ ko te ñu ngi koy seereel Serigne Touba Serigne Touba nag mooy nangu te jàpp nañ ne bu nanguwul woon du amaat bay dolli ko nangu gum ko nangu moo tax muy amaat waxtu wu ne te waxtu wu ñëwee gën a dolli ko kon nag ñu lay sant bu baax di la gërëm bu baax di gën a fedd li kóllëre gi nga xam ne moo dox suñu diggante te Sëriñ Tuubaa fas ko ñu di ko dundalit ci liggéeyal Sëriñ tubaa di la ñaanalit ci barkeb Sëriñ tubaa ak barkeb barab bi ak barkeb weer bu tedd wi ñu nekk ak fan yu tedd yii ñu nekk di waajal màggal Tuubaa suñu borom taxawu la ni nga taxawoo jaamam yii ci bis bis bu tedd bi Sëriñ Tuubaa féetale fu fi nga féete taalibeem yii ci barab bi ci waxtu wi loolu moom ala kulli haal dañ koy ñaan di la sant nag bu baax di la gërëm di gërëm it sa euh, jaboot gi nga xam ne ñoom nga àndal liggéey bi nga xam ne euh, boo waree ñëw boo waree toppatoo bagage ak lu mel noonu ñoom ñooy ñëw ci barab bi di say rak di say bokk ñëw xool li fi jaadu jël liste yi dem examiner ko ñëw waxtaan ak yow xamal la nangam ak nangam kat laa fekk nangam ak nangam la ñu war a soxla nga topp ko lépp ba mu ñoom ñoom itam wax dëgg yàlla cawarte gu toll ne gi nga am ci liggéey bi moom lañ am ci liggéey bi kon ñu leen a sant a sant mënuñu leen ñàkk a gërëm di la wax nag ne sëñ Touba moom lii eh, danay faral dégg sëñ Sidi Mbacke Cheikh Abdoul Ahad di wax ne sëñ Laat dafa daan wax ne sëñ Touba laa doon liggéeyal ba samay morom raw ma nee na nopp mësu koo dégg bët masukoo koo gis kon nag na sa xel dal te sa njortu rafet te xam ne kuy liggéeyal Serigne tubaa Serigne Touba moom la Mame Mor Diarra waxoon ba mu ñëwee fii fii Touba fekk fi taalibe yu mag ya ma àndaloon ca at yu njëkk ya te boobu metti na lool mu wax da leen a wax ne dafay fanaan xamuñu nee nañ waxtu mu fi ñëw waaye bi ñu jullee fajar ba noppi da a dajale ci buntu jàkka ji muy fii foofu booba ci euh, at yu njëkk xam naa do sori 1890 wala 89 dajale mag ñëpp ne leen seen waa ji laa leen bëgg a xamal dara ci moom négul ba am négul ba wut dajale wu leen fi ba noppi door di wuti lu mu leen faye dafa am lu mu leen faye ba noppi door leen fee dajale kon nag yow it xamal ne Serigne Touba dafa am ko pay ba noppi nga door koo liggéeyal Serigne Touba nag kenn du ko jam naañ moom jàmbaar nga yaa ngi góorgóorlu ñeenti at a ngi nii ñuy seere sa jëf waaye na xam ne sëñ Tuubaa kenn du ko jam naan te boo xoolee yow sa bopp sax danga nga yëg ne bi nga commencé defal lii sëriñ Tuubaa ak léegi am na fu la sëriñ Tuubaa féete foo xam ne yokku na ca fam la féete woon yàlla na gën a jëm kanam nag yàlla na ne ci ayu làmmiñ ak ayu bët ak lépp nga koor gi itam nu mel nii nga defoon da ànd ak say say say xarit say bokk say yëpp ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi yow daal lii la sëñ bi santoon ci euh, dañoo boole woon rek waaye boole gam nu boole woon nag yow jàpp nga kóllëre gi ci yaa ngi koy doxal lu manqué nag ci noonu la manqué noonu nag manqué gi xëy na du ñàkk du ñàkk yéene du ñàkk yitte du ñàkk leen waaye xëy na liggéey bi moo xat ba ni ñuy war a mën a ñëwee ci yow mënuñu koo ñëwee ci yow waaye jëmm yu soree amul solo xol yi moo am solo te xol moom jegee na ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm te di waa xam nga euh, soxna si barab bi dafa nekk barab boo xam ne euh, bu dee lu mel ni màggal wala événement yi am ci dëkk bi lii jublu si ci barab bi day bari lool te fu nit ñi bari nag euh, jafe-jafe wér-gu-yaram di fa faral di bari xam nga ne dëkk bi dafa tàng ñii daanu dafa bari ñoo xam ne bu leen tàngoor wi jàppee ñu tàngoor wi chaleur bi ak yu mel noonu dañuy daanu dema dema dem ba te perron yi sax dañ fiy tëral ay nit ñu gis ne lii nag kon xalaat bañ ci amoon ndekete fañ ko doon xalaat sax romb na ko loolu moo tax su màggal jotee su dee màggal dañ daan am jafe-jafe ba ñaari at yi nga gis dañoo yokk extension bi yi nga gis nga xam ne bâche boo xam ne 17 mètres la servite xam nga ne loolu mën naa jël lu bare bare bare euh, noppi itam ren sëriñ bi dafa yokkaat capacité jëmmi euh, infirmière bi ci boppam mën naa ñoo wax ne ci kaw yokk nañ ci lu toll ne li euh, xaajub lu toll ne li fi nekkoon ci suuf ñu dolla dolli fi xaajub lu toll li fi nekkoon nga xam ne dafa nekk minti par deux léegi la amoon am nañ ñaaram am nañ ñaaram ci yaatuwaay am nañ ñaaram ci ay lal am nañ ñaaram ci ay garab tey jii ndax ndax garab yi gis nga ko ak yeneen yi nga xam ne itam jóge nañ feneen ci pharmacien yi ci district bi ak yeneen waaye taxawaay yi daal wax dëgg yàlla gën naa yokk bu baax a baax a baax a baax docteur yi itam yokk nañ bu baax a baax ñoom itam gën cee am pastef gën cee am yéene dégg nga professeur léegi fekk na fi ay élèves am ay étudiants yoo xam ne moo leen jàngal loolu doy nag sant yàlla mel na ne kon xam mi ngi fiy dox man manam mi ngi fiy dox loolu nag day naa sant yàlla bu baax ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm tey ñaan ñu dajawaat fii di ngeen déwén kenn bañ a manqué wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu